Sénégal gii jusqu'à ce que pétrole gaz di génn laa wax am na lu man am na lu mun li mu mën mooy amuñ lu dul impôt foofu la problème bi nekkee da ngay leb di def di leb di def ba nga këmbal leb bi toll foo xam ne nii banque mondiale bi ñu mujjee dem les eurobonds mm-hmm. mille euh, plus trois milliards mais dañ waxoon garder leen moitié pour mais ñu ne ko nous sommes un pays autonome le projet du TER n'a pas été validé par la Banque mondiale dañ leen waxoon euh, parce que xam nga ñoom dans un langage diplomatique le secteur il y a une mauvaise gestion du secteur de, du transport je crois que c'est une phrase à peu près comme ça c'est parce que déjà ba nga koy def yow autour à péage baa ngi fi route nationale il y a même pas de demande au contraire l'ancien projet de Wade qui était les bateaux taxis de Rufisque là à la limite loolu xëy na ça faisait peut-être moins cher parce que da ngay am nga déjà gare routière bu ñu defaroon Tëngéej am na benn euh, fii xam nga ñëw fi port jafewul. mais mais sabab est-ce qu'on doit prendre pour argent comptable les propos wala boog les par la Banque mondiale. non non attends la Banque mondiale xam nga. c'est pas parce que d'accord ci dara la Banque mondiale est très critiquée. Ah. mais nag koo xam ne nii daf lay xaw a dimbale la. parce que ci ci xam nga Banque mondiale néewul kenn bul bay ceeb autosuffisant alimentaire terewu ko kenn néewul kenn bul def terre. moom du la poñe foofu yow tant que tu as cette liberté d'aller emprunter d'aller seetaan mais am na droit ci mission yi muy def ñëw ci ñoom ñu suñ duggee seen ruq yooyu mu ne leen lii lii lii lii mais un pays est un pays autonome Sénégal c'est un pays autonome banque lu mu mën di wax Sénégal am na loo xam ne mën na ko def mais dafa am xam foofu soo fa tollee nañ defoon Grèce lañ lay def wala hmm. Argentine gis nga Grèce demoon nañ ba salaire u retraité yi dañ ko wàññi Abdou Diouf qu'est-ce qu'il a fait en je sais plus 80. ñëw salaire yi 15 pour cent je crois temps dafa am foo xam soo fa tollee dañ lay duma c'est ça nous qu'on qu'on savait et waxuñu bu kenn defar réew mi dangay leb li nga mën a leb nga def ci li li enfin waxuma jaadu ce sont les ordres de priorité mais xam nga un pays chaque dix ans sooy xool les ordres de priorité changent Abdoulaye bi muy doog a ñëw on a tout fait à Dakar ci ay embouteillage il s'est battu pour pour que au moins élagué fii élagué fii affaire bi xaw a tane mu ubbi autoroute à péage comprendre nga teewu ko def université y en a trois teewu ko def hôpital et cetera léegi yow nga ñëw dans une année boo xam ne nii presque feuille de route bi ñu la jox mooy xale yi dañu bëgg liggéey c'était déjà ça cette jeunesse là était à peu près perdue euh, ci ci ci fin règne boobu la la ca des lan la woon on n'avait plus besoin d'un d'un terre à Dakar nangam sangam man su doon ne man maa fa ne mooy on engage l'autosuffisance alimentaire tey bëri na problème yi ñuy li li fi fiy jooy yëpp xaaj bi importation yi euh, je parle sous le contre de Momar mais ça nous coûte combien en oignon oignon donc pomme de terre rek mënut a doy ci réew mi euh, soble munu fu doy y a des améliorations bu ma ko kenn wax amélioration mënul ñàkk depuis Abdoulaye de déclenché la guana l'agriculture sénégalaise s'est porté de mieux en mieux d'année en année ba muy jënd ay tracteurs moom wàdd l'agriculture aussi donc continuité boobu mais dafa doyul parce que 400 milliards 450 milliards je crois c'était la facture de la Guana mais terre bi on parle de 1000 donc problème de fond bi mooy benn leb nañ xaalis bu ëpp Sénégalais kooku laaj mënoon anam yow kon jàpp nga ne saa yow jàpp nga fu mu toll nii. même su fekkee ne waxuñu ko sax di egg na pour cent. non c'est pas une question de egg pour cent egguñu fa suñ bàyyi woon. suñ hmm. bàyyi woon changé wuñ données yi. Hmm. on serait peut dans les pour cent tey ñu ci ay 52 50 bi ñu changé affaire yi. Hmm. parce que pays bi dafa passé de à 13000. bien mais ça c'est une gymnastique. comprendre nga loolu du tey yow 7000 milliards yi nga yore da nga koy fay entre 80 et 100 milliards euh, service de bi da nga koy fay le problème c'est pas ça le problème c'est pas que waxuñu kenn bu leb mais il faut être rationnel dans les ordres de priorité les Sénégalais avaient besoin de quoi on a des gosses qui traînent dans les écoles privées certains sont dans le virtuel entre le ciel et la terre yow amoo université boo def ana Diamniadio ana Kaolack mais yow yaa tal terre alors pendant que ta est-ce que dakaar ñu ngi naan ndox Momar consommateur on a des problèmes yoo xam ne nii tey tey tey tey mais mooy chose de tubaa mais kenn kenn kenn laajut Ila soxla soxlawuñu ko. non booy dem Touba doo jël Ila Touba non dafa ndànk ñun benn problème la Sénégal gépp am. Hmm. mooy Dakar Thiès nañ ñu génnee ñu génn Thiès nga jël route nationale mais tu roules à 100 à l'heure Bambey nga dëkk xam nga bu baax li ma lay wax diggante cees Bambey quel est le problème. man damay dem damay wàcc temps yi nga xam ne tali euh, raccordement yi defaluñ ko mais xombol lay wàcc. kon nee nga Amadou daw li ma neex ba egg fa ma jëm donc c'était pas une demande c'est-à-dire am na foo xam ne nii def nañ fa alal mais il ne fallait pas topp peut-être schéma Wade bi. il a fait ceci damay def lii topp ko mu mel ni benn course boo xam ne nii euh, ki kii mieux mieux. léegi balaa maa jox docteur Souleymane Sidiane nga def nga nga donc léegi Amadou ko teg lan la def. mais mooy bor xam nga je donne un exemple très simple aux étudiants. Uh-huh. demee banque xam nga banque bi wax. mën naa naa lebal c'est le tiers de ton salaire qu'on prend. Uh-huh. yow da ko nangu. wala yow ba avant ngay ñëw defoo sa kër sa calcul nga ne ko mën a leb ak mën a fay du benn. ndax soo ma jëlee mu le tiers de mon salaire mais sama doom du jàngi. ah boo ko defee duñ la lebal di. non attends non non non tu peux dire je je je kenn du ma jëlal tiers salaire prenez le cinquième de mon salaire ñu lebal la li nga tollool nga xam ne man lii laa mën a fay du ma lor sama doom du ma lor sama waa kër. bu ba li nga bëgg na dafay wàññeeku tamit. mais c'est bon ma xam ne lii laa man mais ku def loo mënul mu dem ñu dagg sa un sa doom du jàngi ki la sacrifié yow yaa ko sacrifié donc foofu lay waxee c'est-à-dire que nañ lebi. Mm-hmm. on est d'accord le Sénégal est crédible oui nous sommes cré crédible ba fan yow crédible boo xam ne ni tey mun munoo fay ñaari ndërëm yi yoo yoo li ñuy fay moo ñu rey lu ñu fi dajale ci xaalis def ko ci service de la dette fay salaire affaire bi jeex la capacité financière propre de ce pays là weesul impôt douane nangam sangam mais ça ne peut pas dépasser cent cinquante milliards par par mois waaye yow léegi nag nga nga yor daanaka. benn ñaari dépense incompressible Macky Sall président Macky Sall moo ko wax de moo ne 80 milliards salaire waxu boobu ce sont ces chiffres là le le le le truc est entre 80 et 100 milliards de service de la dette mu ñaata 160 milliards waaw après étudiants yi génn ci benn bi saaga keneen génn na na fayuma BTP ñu ne leen xaar leen les on doit 250 milliards au BTP 250 milliards sur le service xaw ma financier xaw ma yenn banque ñoo ko wax et les autres 19 si la. donc y' a problème da nga dem ba nga xam ne yow amatoo trésorerie lu dugg gars yi dañuy rang dañuy rang trésor public de dañuy rang de. Hmm. ah waaw waaw kenn ku nekk yaa ngi su kayitu daaw. wala wala bu daaw jéeg. waaw di rang te loolu dem na ba. d'accord la subvention qu'on devait donner normalement à la Sénélec est plombée mais soo noo ko looy joxe. xam soo doo joxe. docteur maa ngi ñëw ci yow professeur. c'est ça problème.